tey dafa am jàngat bu am solo bu ñu bëgg def jëmale ko ci ay kaddu yu Ousmane Sonko yëkkati jëmale ko ci képp kuy africain message bu am solo lool boo xam ne ñu bëri bàyyiwuñ ci xel moom la lancé seeni ay détracteur tàmbali di leen sànni ay xeer di leen critiquer lu ni nag ñu ci bëri ci patriotes yi bàyyiwuñ ci xel yëguñu ko li ko waral nekkul leen lu dul dañoo gën gën a concentré wu ci actualité nationale maanaam liy xew ci biir réew mi alors que ci Afrique am na ci ay activistes yoo xam ne benn chantier la am mooy détruire Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye dara ko nag lu du la yenn position yi ñu jël du ñu yegg au pouvoir jël benn drapeau changé ko ak beneen leen naa leen yitteel mooy fexe ba Sénégal am indépendance ànd ci ak yeneen réewi Afrique yi ba dépendre ci kenn du France du États-Unis a défi du monde actuel li moo waral gis nañ yenn attaques yu bëri yoo xam ne dafa jëm ci Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye kee ci ay activiste bëri ci ñu ñu xàmmee ñu ñu ràññee comme ku ci mel ni Franklin Yamsi Kémi Seba ak Nathalie Yomb li moo waral jàngat bi bile dinañ ci dikkaat en français ngir gën koo mën a tasaare ay laata ñu yeggali nañu teewlu d'abord ay kaddu yu Ousmane Sonko doo ko dikkaat ci suñu jàngat bu leen fàtte abonné aimé vidéo bi partagé ko ngir ñu bëree bëri dal ci mën a jot où les principes qu'on nous vend, qui sont décrétés à gauche, à droite, n'engagent que ceux qui, y croient. Mais tout cela interpelle également enfin la conscience des musulmans que nous sommes, des Africains que nous sommes, des croyants que nous de comprendre que personne ne nous fera à notre place. Si on est là, c'est lié à nos multiples divisions. Nous sommes incapables de parler d'une seule voix. Même si on le laisse entre nous, nous sommes là à nous tirer dessus, à nous chamailler, partant de détails insignifiants. Je suis plus croyant que d'autres. J'ai la vérité infuse. Les autres sont dans l'ignorance totale. Nous devons distinguer les aspects culturels des aspects politiques de, de la démarche qui doit être, doit être la nôtre pour créer des blocs qui nous permettent de nous défendre. Et je parle au double sens de croyants que nous sommes, quelle que soit notre croyance, et d'Africains que nous sommes. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Les Africains sont sur les réseaux sociaux en train de se tirer dessus, sur des détails insignifiants, alors que nous sommes à tous les niveaux les derniers de ce monde. pour les croyances, c'est la même chose. Et pourtant, pour les musulmans que nous sommes, le Coran nous avait déjà averti des conséquences de la division. Chacun peut avoir sa façon de voir, qu'on soit sunnite, chia ou je ne sais pas, à l'intérieur des sunnis, qu'on soit euh, orthodoxe, soufi ou tout ce qu'on veut dire. Mais politiquement, nous devons transcender ces questions-là si nous voulons compter dans le monde, si nous voulons faire face, si nous voulons exister. en tant que croyant, mais en tant qu'Africain également. Je parle dans les, dans les deux directions. Et ce qui arrive aujourd'hui à la Palestine, qui, a, qui arrive ailleurs, parce qu'ailleurs aussi, il y a des musulmans qui sont martyrisés. Comme il y a dans d'autres zones du monde des personnes qui sont martyrisées parce que simplement elles sont chrétiennes, qui sont attaquées par des bandes armées qui se disent musulmans qui ne le sont absolument pas parce qu'un musulman ne se comporte pas comme ça. Mais si l'on veut faire face à toutes ces situations-là, il nous faut transcender nos petites différences. Le monde aujourd'hui fonctionne sur la base de la puissance et des blocs. Pourquoi le monde entier, le monde occidental entier, ne peut aujourd'hui ne peut, faire, ne peut pas faire grand-chose face à Vladimir Poutine Pourquoi parce qu'il a la puissance. ñoo ko déggandoo dañoo nekk ci àdduna boo xam ni ay bloc ñoom ñooy formé ngir gën a mën a am doole gën a comme ni ñu ko waxee au défi du monde lépp loo xam ne rek dañ koy def muy liggéey ba àndandoo moom la Ousmane Sonko di jéem a wax ci jàngatam ne àdduna bi foofee la ñu toll même les grandes ñi ngi xool naka la def ba former un bloc ngir gën a mën a seeni taxawaay la ci jublu mooy gën a àdduna bi au di dajaloo di xool ni def ba nekk benn ñun africain yi tardel lool amuñu lenn mënaluñu dara suñu bopp ñooy am ay jaxasoo ak divergence ay sujet yoo xam ne bu ko toogoon waxtaanee dimbalante jàppalante mën nañ cee am ay solution waaye furaas lan moo ñu yitteel léeg-léeg mooy suñu ego naka la ñuy def ba ñun ñu gën a fes te nag souvent day am ay mbir yu ko lal ci suuf ndax ñëpp xam nañu ne influence étrangère jugul benn yoon ñi nga xam ne ñooy jéem a détourner jeunesse africaine bi objectif ma leen ci leneen loo xam ne intérêt beneen dëkk lay doon être plus simple bëri na ci ay activistes africain yoo xam ne ay bukki yu sàngoo deru béy lañ eneen la ñuy liggéeyal Afrique yitteelu leen soxalu leen au contraire dañu koy dundee li koy firndeel mooy ani ab activiste xeex France ba noppi am nationalité française lu mel contradiction gënu koo rëy loolee moo waral Ousmane Sonko di woo ndaw ñi africains yi en général ngir ñu gën a ci li ñuy xaar mais pour ce faire il faudra que jiitu réew yi gën a am responsabilité ci li ñuy def xoolaat seen taxawaay defaraat seen toogin mais aussi ital intérêt wu seeni askan intérêt wu Afrique moom Sonko posture bii nga xam ne am na ko tey nekkul lu bees yàgg na ci da koo mës a wax mës ceewoo képp kuy africain nañu fàttaliku bi muy woo ndaw ñi enjeu yi nekk ci suñu kanam ngir ñu bañ koo raté benn yoon ndax boobaa rattrapé ko dina lool ba mu dafa woo képp kuy ngir ñu ànd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 lii mooy vision bu leer nañ bi nga xam ne Ousmane Sonko am na ko ñu war ko cee mën a jàppale ñun képp kuy sénégalais rawatina kuy africain am nañ fi ñu jëm am nañu feuille de route te boobu ba tey ñu ngi doxal lenn mooy objectif bi mooy la souveraineté luy loolu mooy moom sa bopp am indépendance ci fànn yu bëri ndax bëri na ci loo xam ne dañu cee noota ma waral mënaguñoo am benn taxawaay bi face aux grandes puissances pour ce faire il faudra que ñu teg ay stratégie yoo xam ne du nekk rupture totale buy ñëw rek brutale déedéet waaye dañuy dem pas benn par benn dinañ dema dem ba moom suñu bopp ci yenn yu bëri fekk na itam teg nañ ay politique de développement yoo xam ni moo ñu cay tax a dem tax ñu cee yegg boole ceeg gëm suñu bopp gëm suñu ay réew gëm suñu continent liggéeyal côté du am lenn lu ñu ci séntu ci gannaaw sans muy am corruption ak enrichissement illicite loolee moo waral le slogan jub-jubal ak jubbanti di li am solo au début nag dina métti lool waaye faw ñu jàppalante ngir mën a atteindre boobu le objectif ndax Afrique am na tous les moyens de se développer li ñu manqué woon nekkul leen lu dul ñu am ay njiit njiit yu am fulla seen bopp gëm seen réew boole kook jeunesse bu consciente xam li koy xaar fas yéene liggéey ngir indi ay changement coppite yu mag ca loolee nga xam ne depuis suñuy maam ñu ngi koy dund ba tey kon en résumé Ousmane Sonko li mu bëgg a wax mooy nañu ànd booloo def benn say ngir défi yu bëree bëri yi nekk ci adduna bi ñu mën ko relever mën naa nekk c'est bien possible il suffit tout simplement ñu def ci li ci war a mais surtout ñu muñalante jàppalante ngir atteindre yooyu le objectifs fii ay at gëm nañu ne Sénégal dina wàll yeneen réewu Afrique yi ndax influence bi nga xam ne Ousmane Sonko am na ko dina ci jouer rôle bu ama am solo kon la vision éclaire claire mooy dañuy dox jëm ci souveraineté moom suñu bopp ci bépp fànn mën naa nekk nañu ko gëm te gunge suñu ay njiita ngir yegg ci mbir mu ni mel changement dina am ci Sénégal ak ci Afrique gi yëpp